mooy képp koo xam ne am nga sanc ju yees lu mu lay tegtal mooy saay su ne kër googu nga xam ne doon na sanc bu yees bi ñuy doog a sanc heure bu ñu xëyee lu toll si juróom-ñaari fan lañ fa jàng suratul faatiha lu toll si ñetti yoon su lixlaas lu toll si ñetti yoon suratul yaasin lu toll si ñetti yoon képp koo xam ne am nga dëkkuwaay bu bees di ko def si kàttanu suñu borom yàlla dina la jàppandil say mbir ba nga xamante ne maanaam sa dëkkuwaay boobu di nga fa am jàmm ak xéwal gu bëri bëri suratul yaasin sax boo koy saxoo di jàng si kër maanaam kër googu duñu ñàkk ñàkk te kër googu du ñu ñàkk lu ñu dundee du ñu ñàkk loo xamante ne maanaam saay su ne suñu borom dina leen suturaal suratul yaasin doon na li nga xamante ne ba léegi doomu aadama bu koy saxoo di jàng ba léegi rek suñu boroom dina ko defal sutura gudd fan ak wér te ak mën a doomu aadama ay jafe képp ko am jafe di saxoo di ko jàng yàlla dina la teggil sa jafe yooyu incha allahu ba léegi rek suratul yaasin guddi àjjuma bu ne nga koy jàng lu toll si maanaam 44 fois guddi àjjuma bu ne yàlla dina la defal gudd fan ak wér suñu borom dana yokk sa daraja incha allahu rabbi di nga gën a am tawxiid ak iman sa digganteeg suñu borom incha allahu rabbi muy 44 fois saa su ne guddi àjjuma bu ne saay su ne sax baax na ngay wax nañ la ko jàngalul tamit am na solo lool même bërëbu liggéeykaay ba nga xam ne kam ku si mel ni commerçant bi ak ki nga xam ne yor na bërëbu liggéeykaay di liggéey dafay faral di jàngalu suratul yaasin ndax suñu borom dina ko musal dina ko aar si seytaane dina ko musal dina ko foofu nga xam ne mi ngi nekk si bërëbu liggéeykaay bi ak ki nga xam ne nekk na sax maanaam si bërëbu liggéeykaayam ak ay collaborateuram di nekk ak ñoom di liggéey kooku buy saxoo di jàng suratul yaasin sax dina am ak jàmm ñëpp foofu mu nekk incha allahu nekk fa yaatu macha allah nañ si bàyyi xel bu baax a baax moo tax baax na saay su nekk gulli julli timis bu nekk ginnaaw ba nga jullee timis nga jàng ko lu toll si juróom-ñaari yoon yàlla dina la aar protection la ndax suratul yaasin day aar doomu aadama protection la ñu bàyyi si xel bu baax a baax loolu xéwal na si soo suratul yaasin kon ngëneel googu la leen loon tey fii si seen émission baaxe ngëneel di leen ko baaxe saay su nekk di leen fàttali ngeen partager émission yi di ko aimé nombre defee vues yi di gën a yokku saay su nekk ngeen partage lien bi am na solo fii si daara yi Linguère ngeen bàyyi si xel bu baax a baax